waaw li may euh, njëkkal mooy rek di wane suñu suñu mbégte ci ànd gi nga xamante ne bi ñun ñëpp àndandoo nañu ko muy ñëpp ñoo xam ne rek ñu ngi ànd liggéey ak président Macky Sall muy euh, ñi nga xamante ne bi ñoom la doon liggéeyal mu ñu nekkoon ci benn bokk yaakaar ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw bees également ngir ànd ak moom ngir ñu liggéey Sénégal ngir intérêt Sénégal muy le président euh, Idriss Seck muy le président Moustapha Niass muy madame Aminata ngi avec le PS et tous les autres partie de la mouvance présidentielle tey jii ñoo ñëpp seen i njaboot ñu ngi fi tey ànd ak ñun ñu bokk yendu di xàccandoo di dóorandoo ñu ànd nag wër li nga xam ne moom le président def ci dëkk bi parce que ñu bare bari dañuy wër di siiwal naa président Macky Sall dafa dara Touba dafa dara Touba te loolu méngoowut ak li nga xamante ni bii mooy li nekk barki démb wax nañu ne li muy def ci dëkk bi li ko yées juróom-ñett fukki milliards bëriwut loolu dañ koy mën a lim boo jëlee te yi nga xamante ne bii mooy trent bi wër daanaka 12 milliards 800 millions la nga jël li nga xamante ne bii mooy assainissement ndox mi nga xam ne mooy jóge ci kër yi mu mat 9 milliards 700 millions nga jël li nga xam ne mooy assainissement taw bi loolu itam muy xaalis bu bëree baree baree bëri am na lu ñu ci defoon lu bari yokkaat nañ ci 1 milliard 200 ngir gën a yokku kondiwi yi. ngir yóbbu ko ba fa nga xamante ni moo di euh, moo di Pouf di <clears throat> nga jël ci wàllu santé am ci lu mat 32 milliards ci benn hôpital amaat ci 6 milliards ci biir hôpital Matlaboul Fawzeyni te ma taxaw ci 32 euh, milliards bi nee nañu Afrique de l'Ouest hôpital mel noonu amu fi te bu paree buñ ubbi ko bu nit ñu gis ko loolu danañ teg seen bët ndax li may wax foog naa mi ngi ci sunu kon ñëpp nañu téye loolu ñu denc ko mu mat lu mat 300 lits yoo xam ne sax mën nañ ko yokk ba mat 500 lits. boo ñëwee fi nga taxaw ni tey man na lu mat juróomi milliards loolu bokkul ak ndox mi ñetti forage ak ñetti château yoo xam ne ren jii rek aujourd'hui ñu ngi ci boolu ma ci li nga xamante ne bii pare woon daaw avant euh, avant màggal gi nga jël ci wàllu tey ji am na 20 kilomètres yoo xam ne ñu koy def bu fekkee da ngay dem sàmm euh, fàttali naa léegi wàllu sécurité sax bi may bi may njëkk di wax li fi def ci eh, ci ay commissariat euh, li nga xam ne aussi moom la ñu def ci wàllu brigade de gendarmerie ci wàllu escadron bi loolu lépp également pour renforcer sécurité dëkk bi parce que dëkk bi dafa rëy fenn fu dafay jóge également ñu ngi may signaler les postes de santé et les donc loolu lépp bu fekkente ne bii boole nga ko dafay loo xamante ne bii doy alal bi takku te loolu moo tax sunu kilifa yi nga xam ne du nu waxal ku dul yàlla lu dul yàlla aussi du leen tax a wax moo tax waxtu wu nekk ñu ngi sant di ko gërëm loolu aussi moo tax sëriñ bi ne xook rek yow defal li ngay def te bul geesu bul seet nit ñi defar ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa mi tax ngay def dana la fay te sëriñ Tuubaa am na fay te ku mu fay nga fay lim am loolu mooy li ko may kon loolu nag moo taxoon tey ñu ne ñun dañuy jóg euh, parce que ñun dañuy liggéey ak moom au plan politique parce que ñun aussi dañuy dëkk dëkk bi di ay taalibe di ay gor te ku ñu defal ñu war la sant dëkk ci également ci réew mi ba képp koo xam ne yaa ngi tabax réew mi am ñu jóg bëgg a nasaxal liggéey boobu ci ay wax yoo xam ne ay waxi kasaw kasalu yoo xam ne tegu fi benn barab dañuy jóg nag loolu ne leen kat mbir mi nii la demee ñay wax loolu nag waxuñu ak ñoom parce que duñ mos a wax ñu mukk ci àdduna mais ñun ñi ñuy teel intéressé ñu mooy le peuple sénégalais ñi nga xam ne tey jii mi ngi nii xool ñu ne kat boo ñëwee fii ci Touba lii mooy réalité bi fi nekk te réalité bi fi nekk alhamdulilah mooy réalité également bi nekk dans tout le Sénégal boo demee Dakar investissement ya jege na 2000 milliards boo demee Casamance c' est chose boo demee côté côté nord c' est la même chose nga dem côté est c' est la même chose foofu dem fu ne noonu la dem parce que aussi loolu mën na ci ñëwaat li nga ne mooy programme d' équité territoriale et d' inclusion nga xam ne bàyyiwuñu dara eh? kon loolu nag obligation la si ñun ñun ñu leeral ko nit ñi ba ñu xam ko bu seen bopp yi mën ubbiku ba kenn du mën a ñëw di ci def loo xamante ne bii ay wax yoo xam ne wax yu wax wax ko daan ko sareet la loolu moo tax ñun tey ñu jóg jël suñu ay responsabilité ànd ak suñu ay xarit ànd ak suñu ay mbokk ànd ak suñu ay partenaire politique ngir nag taxaw fësal bilan bi nga xamante ni mi ngi ci mi ngi ci dëkk bi te kenn ku nekk bu ko fësalee ci commune ba dëkk kenn ku nekk bu ko fësalee ci département ba mu dëkk dinañu xam ne président li nga xam ne def na ko ci réew mi ci diggante ba gàtt bi kenn xamul mu taw dañu nekk ci context bu bu particulier ndax Covid 19 bi dafa ñëw daaw daanañ ci suñu kaw te kenn xaaru ko woon euh, ñu jël lu man 1000 ci budget bi defaat ko feneen loolu am ay chantier yoo xam ne xañ na yeexal na ko mais plan bi ñu teg tax na ba tey ji chantier yëpp reprendre naan la ba alhamdulilah nit ñi ñu ngi ñu ngi liggéey ba feeg diir bu gàtt bu ci yàlla andee xañ na yu ci bari bari mën nañ ko réceptionné mais ñun et bi également ci ci bit boobu lañ ko defee pour xam li nga xam ne moo xew sur le terrain lan mooy dox lan moo doxut su boobaa ne danay xam ñun ci sunu liggéey yan xal yan conseil yan xeltu la ñu mën a joxe pour que kat changement am ci yenn yi ngir yëf yi gën a gaaw ngir lan lu nekk moom na mu ko yéene woon te xam ne aussi ko yore aussi ñoom noonu lañ ko bëggee sunu borom dimbalañu ba mu demee noona parce que ñun ñëpp ñoo ci war a bokk benn euh, taxawaay bi. kon loolu si bokk na ci objectif li nga xamante ne bii mooy visite bi te aussi ñun foofu lañ mën a féetee dëkk bi gis nga c'est pas pour nekk ma ànd ak un député de l'Assemblée nationale. moom itam bu demee assemblée lépp lu mu fa war a dëkk bi Touba ak askan wi bu soobee yàlla dana ko dana ko def ci ci fànn googu pour dire que loolu lépp rek dañ koy def non pas même pour di def politique ndax li dépassé na politique parce que fii ñu nekk ni tey jii euh, APR moomu ko Sénégal moo moom kon li ñuy def nañ koy def pour les citoyens sénégalais. dañ koy def également pour askanu dëkk bi ak pour mboolem askanu réew mi yëpp. Euh, li nga wax léegi ci la problème communication am na ci <coughs> parce que xam nga jëf-jëf ju day nii ay nit jóg nasaxal ko na jëf ji amul dox ba gëmloo ko nit ñi ba nit ñi voté ci loo xamante ne bii méngoowul ak li nga xamante ne mooy mooy la réalité loolu am na ci donc c'est surtout un problème de communication am ci ñeneen ñoo xam ne nag ñoom sax dañuy jóg nag di xeex te malheureusement nekkuñ sax ci terrain politique. nga xam ne kon ñoom li ñu def sax peut dañ cee waroon a maalu di di di jaxase xel nit ñi ba nit ñi gëm yooyu yooyu nag yooyu nag moo tax ba ñu jóg am taxawaay bi ñu taxaw ngir ci ci fànn googu lépp loo xamante ne bii mooy li nga xam ne mooy li méngoo ak réalité li méngoo ak dëgg ñu wanto nit ñi ba ëllëg bu ñu def seen choix ñu mën ko def de manière éclairée mais teg ko sur des éléments factuels objectifs ba nga xam ne kenn du leen mën a nax kenn du leen mën a dugal ci ci ci giraawaat yi. yow bon ñu ngi gis man depuis bi ñu tàmbalee politique ba léegi ça c' est c' est de bataille parce que tey sancaan yi ñooy voté ñu jël euh, mboolem fi ñuy wote fépp yóbbu ko ci bi ne leen kat lii moom xañ na ay problème la nangam ak nangam moo tax ñu jox leen waaye lañ jàpp lu baax la bu dikkee ñu génne leen ci bu ndox ñëwee duñ leen jox bu courant ñëwee duñ leen jox. bu tali ñëwee duñ leen jox bu assainissement ñëwee duñ leen jox mu ngi séddale kenn du leen sédd mais kooku naka nga ko mën a jàppee mbalit jël jël jël wate wakaay teg ko teg ko fi moom ne di ñun ñu jógee fi nga xamante ne bii moo ci digg dëkk bi dem di fi watee ji nga bëgg su bis bi am wateel la mais mais day na changement parce que ñun boobu ba tey ñu ngi wax waxtu fu ñu ci war a wax fu ñu fay wax tey ji am na 20 kilomètres d'électrification yoo xam ne dugg na fa PACASEN mi nga xam ne projet 9 milliards la dugal na fa également benn benn benn tali euh, ndox mi également ma nga fay dem pour adduction d'eau yi si aussi PACASEN am na liggéey boo xam ne ngi ko ci mi ngi ko ci euh, loolu rek mooy ñun li ñu bëggoon ñu di ki sant na ki nga xam ne mooy borom dëkk bi la xalifa général des mourides parce que moom aussi euh, loolu daf ko yitteel ndax xam na ne foo waaye man na jóge dikk ci dëkk bi Serigne Touba mën a yëkkati te daw ay jafe-jafe fa nga nekk parce que amoon téléphone amoon ndox amoon courant nawet bi neexatul nga naa daw ñëw Tuubaa ndax mooy mooy mooy mooy daw làqu gi loolu mu nañ fi indi sëriñ bi xam loola ba tey ji lépp loo xam ne jógati na mu ne kat ñoom nañ leen jox seen wàll autorité politique yi nga xam ne aussi ñoo yor réew mi ñoom mosuñu bëgg lenn lu dul ñoom itam loolu ñu sawar ca lool ba tax ji tey changement am na moo lool loolu ñun bañ accompagner ak communication bi ñu ko war a la ba tax tey jii ñu jógaat ndax xam nga moo ngeen xoolee kenn mënut a def parce que dañu tëjoon réew mi am na sax ñu ko doon def mais ñooñu bu leen neexee duñ méngoo ak yoon mais mënuñu ànd ak ki nga xam ne mooy jiite réew mi mu ne na ngeen conformé wu ci li ñun ñu jóg di jalgat si yoon woowa tey jii ubbi nañu réew mi yëpp kon ñu reprendre les lii mooy li ci euh, li ci jiitu biir koor gi danañ def bis bu mag boo xam ne bisum ndimbal lay doon te ndimbal loolee duñ ci fàtte gox yooyu ngay wax bu loolu jàllee ba ñu wari fas yéene amal ay tournée ci biir mbooleem village yi nekk ci dëkk bi ndax tubaa commune la boo xam ne c'est plus c'est près de 94 villages fu ne fas nañ fi ne tànk gisanteeg imam ya fa nekk gisanteeg sëriñ sa fa nekk gisanteeg chef village ya fa nekk gisanteek ndaw ya fa nekk gisanteek jigéen ya fa nekk gisanteeg mag ya fa nekk waxtaan ak ñoom xam ma lan mooy seen ay jafe-jafe luñ ca mën a saafara ñu saafara ko luñ ca mënta saafara bu ca maire mënee dara ñu àggale ko ci moom lu ci mel dara bu waree àgg aussi Dakar au niveau central ñu àggale ko foofa donc yemale euh, ci commune Touba danañ def ces tournées là dans toutes les communes du département de Mbacké ndax fu ci nekk am na ay jafe-jafe ñu dund maa ngi maa ngi xalaat fu mel ne yoon wi nga xam ne moo jaar diggante Taïf ak Sadio donc loolu lépp prévoir boo xam ne war ko def mais mënuñ ko def te demuñ fa ba gis ko ba xool ban état la toll wax ak nit ña dox ci ba yàlla saafara loolu foog naa nii bu ñu ko defee. ndax élection yi aussi ginnaaw suba la balaa balaa man at parti bi tey taxaw nañu alliés yi taxaw nañu pour la mouvance présidentielle taxaw nañu et on est d'attaque pour que incha allah élection locale yi di ñëw non seulement ñu gagner le département mais ñu rafler l'ensemble des commune du département de Mbacké c'est ça l'objectif et aujourd'hui avec Idriss Seck qui, qui est venu nous rejoindre et qui avait eu plus de cent mille voix avec tous les alliés également qui sont avec nous amuñ benn benn benn ñaaw njortu ci ne objectif boobu ci àndee danañu ko atteindre nañu si kanam xëyuñ ci ñoom te xëy te te attanuñu. merci beaucoup c'est moi qui